jaajëfati mbokk yi woy ànd ak ñun seetaan déglu mbégte ñu daal di dellu siwaat ak yéen ni nga ko di baaxoo di ko defee rek saa su ne si seen jataay waxtaan woo xam ni dañuy waxtaan waxtaanee lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu bio mooy lu naturel te saa su ne rek bu ñu gisee ne facultatif bu baax la des koy wasaare ba ku ci nekk ko nekk nga jot ko ba boo ko itteewoo rek incha allah nga daal di woy ànd ak ñun ci numéro bu baax bi di 77 244 90 05 nga mën ko am kon lii mooy vitamine E vitamine E nag. dafa baax ndax soo ko dee naan daf lay yokk sa système immunitaire doole te système immunitaire daanaka su amee doole di nga mën a mucc ci feebar yu bari ndax lépp luy dugg lu ne te bokk ci mu xeex ak moom lépp lu dëkk te bëgg xeex ak moom mu xeex ak moom kon nga gis ne baaxit lool. waaye vitamine E yamul foofu mën nga ko jëfandikoo ci beneen anam su la neexee nga jël ko boole ko ak eau de rose donc di ko seulement ndax daf lay dimbali ci wàllu rit ak yeneen xeet yu ni mel. su la neexee tamit soo amee sa poudre de curcuma nga daal di jël sa benn gélule nga daal di ko dagg daal di ko ci def jaxase ko def ko ay masque kon gis ngeen ne daal bi 30 gélule la chaque jour boo xëyee suba la matin soo ndekkee ba noppi nga naan benn soo ko dee def ci 30 jours yi suñu borom mën na laa dimbali nga mucc ci lépp lu jëm ci wàllu xeetu feebar yu ñu xam kon yow mi seetaan ko déglu te itteewoo ko gélule yaa ngi nii ku ko itteewoo rek ak loo ca rek incha allah seen cabinet bio rahma taxaw na ngir yombalal yëf yi gunge la jàppale la mën nga ko am Thiès mën nga ko am Touba mën nga ko am Njaareem mën nga ko am Louga Mbour Géej mën nga ko am Mauritanie waaye mën am foofee nga xam ne moom moo di Ndar Géej kon mbokk yi seetaan ak déglu yëf yaa ngi nii képp ku ko soxla 77 244 98 05 seen gélule yi nga xam ne mooy vitamine E.